bonsoir à toutes et à tous ginnaaw bu ñu leen nuyoo ku nekk sa tur yi nga xamante ne Mader TV rek la ñuy safoo saa su ne ñu ngi am mbégte kontaan retrouver waat leen fii nii ci arène nationale bu Pikine pour daal jox lépp li nga xamante ne dina dem ci combat bi nga xamante ne adduna bi yëpp ak lu lamb yëpp ñu ngi koy xaarandi ak doole mu war a dox ci diggante kii di Lac de Guiers 2 bu écurie Walo ak kii di Siteu bu écurie Lansar tey dimanche 19 novembre 2023 fii nii ci arène nationale ñaari mbër yooyu ñaari champion yooyu dinañ tassé sank rek gis ngeen ma ngi len topalon eh, di Lac de guerre. ginnaw bu mu indé mbolo bu takku bi nga xamantene top nako na ko depuis géejuwaay ba fi donc um, dugg si na léegi dañuy xarandi kii di eh, bu Lansar mom tamit loolu tamit di ngeen ko suivre en intégralité nee naa leen Kanse nekk Kanse c'est sur la Madère TV donc duñu duñu def dara rek dañuy xous jox len lepp li nga xamantene voilà dina fi eh, xewé comme information di ngeen ko mën suivre en intégralité fini ci arène nationale bu Pikine non amul lu ñu si wax si mbër rek lañuy lañ la ñu barki Mouhamadou Rasulullah bari pour pour Siteu bi Siteu bi su la tëwee la dëgg la dëgg na xool leneen barki Mouhamadou loolu ñoo faa loolu ñun xamuñu mbool ñu yàlla lañ Lac de Guiers su simeekoo laax si te simeekoo si te yàq laa moom. Ah, yàlla rek lay topp yàlla min rek lay topp Lac de Guiers dana ngay wax doo jongoma jongoma eh, la eh. rek bu xeelee daanu. musul bëreeg sën musul bëreeg jo. ba xam dina ko wala duma loolu amu fi. Siteu kese la. Siteu la duma da daan. la la ay grand mal lay ay grand mal. ay grand mal lay bëree chaque jour tey bi lay bëree dina ko wane di nga bëree wala jonga ma nga nekk ay ah ñu géew si la dee xaar du dërëm géewaay seere bi mbam waaw anam bi ñoo ñoo ñu neexee dañ koy yëngale kan non yow maa nga ñun doomu géewaay lañ géewaay su jugee ñëppay xaar bak Serigne Fallou Mbacké si la dee xaar ñun ñoo leen géewaay lañ dëgg géewaay seere bi mbam waaw waaw fair play rek gaan waaw fair play tey bisu Guédiawaye la yaa ma gën a xam daan daan bu nice waaw dem ñu féetee ko suñu koñ waaw ñu saa ñun ñoo ni accueillir ko waaw ñun ñoo ni dalal ko waaw mais suñu jaayee réewande ñu fekk si si mais suñu jaayee jaama salaam ñu wuyu si leen si kan kan ngay topp Bébé Balla kase Bébé Balla kase waaw ñun ay doom Pikine la ñun Pikine moo ñor waaw ñi ngi ñaanal yàlla tamit euh, njool yàlla na ko yàlla may ndam njaago or Eh, kii kii jàmbaar joli la kii da ko kii da fay jàpp rek yaa ma gën a. waaw li ma ci li ma ci li ma ciy wax rek mooy lamb la ndax euh, ñu bëri ñu ngi jàpp ne Lac de Guiers mooy favori bi d' accord d' accord nañ ñu bëri jàpp nañ ni Siteu mënu daan Lac de Guiers Siteu daan Lac ku ne mën ngaa daan sa morom man sama analyse en tant que sportif cinquante cinquante la ku ne mën ngaa daan sa morom boo xoolee tamit Lac de Guiers moo ëpp expérience ci lamb parce que moo jëriñ ci lamb Siteu tamit mi ngi doog a ñëw Lac de Guiers bu muy bëre Siteu mi ngi nekkoon doon bëre combat bu ndaw kon su demee tey ba yàlla def tey dem di bëre ak Lac de Guiers kon làmb maanaam ku ne lay demee tey ñu ñaambi la cinquante cinquante la daal di ñaanal tamit sama rak man ak Boy ñoo bokk ndey baay maa ngi koy yàlla na ko yàlla may ndam tey ci kaw teg choc ci bat Seydina Mohamed li ma wax supporters yi mooy nañu ñëw fair play avant tout fair play lépp sport moom fair play la li ci ëpp rek mooy nañu ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ñu teg ko ci fair play ñu yóbbu suñu mbër ci kàpp suñu borom te ñaan yàlla na yàlla def jàmm dafal jàmm ñëpp war a xaarandi rek léegi di dugg si nga xamante ne kii di euh, doomu jamagen bi mu ngi koy waaj a ci euh, site bu Lansar écrit euh, Lansar Tarkinda mooy ñëw noonu gis ngeen depuis cinq ba tey kii di Lac de Guiers ginnaaw bu mu see moom tamit bi yoon ñu xaarandi kii di site bu Lansar moom tamit mooy ñëw mooy waaj a si nii ndeysaan mu ngi noonu Euh, force de l'ordre ñoo ko escorté mu ngi noonu di waaj a dugg si kii di Siteu bu écurie Lansar euh, guney jamagen bi le Tarkinda moo ngi noonu di dugg si ngi noonu eh, kii di Siteu moo ne foofu noonu convoi bu mucc ayib bi nga xamante ne gunge nañ ko ñëw fii nii ci arène nationale de Pikine mu ngi noonu ndeysaan gis ngeen lacrymogène yi nga xamante ne pour disperser la foule lu fi ne ci mbooloo dafa doy waar dafa mujj ayib ba na ñu ngi nii di disperser lacrymogène yi daanaka parce que lii lu fi ne ci am yi mbooloo dafa doy waar dafa dafa ayib. Lafasa Ritajabagan Sita Lafasa Ritajabagan Maigang Sita Mujabagan Lafasa Sénégal donc moo nekk nii ànd convoi bu mucc ayib convoi bu doy waar bi nga xamante ne supporters yi tey foo leen nekk rek affaire bi weesu na ko waaw. wax leen lu leen métti loolu lañ bëgg wax dañ comprendre yi ñoo ngi ñëw nag ñu dañoo jigee fu sori am lu ñu métti nag policiers yi dañuy néewal doole lu leen neexee dañu sànday lacrymogène supporter cité yi la ñuy bañ a gis te loolu du yoon président cité la ñuy topp c'est comprendre bëgg nañ ko pare cité mooy président ñëpp daan Siteu Baye Fall la jàmbaar la champion la. la ni mu toll nii. barki Alaaji Fallu bu ko Siteu tolloo jeex na déggoo li ma la wax lii du victoire de lamb ji nii la déggoo Baay Faal la wallaay taalaay champion la ñëpp dañoo bi suuflee la da ngay jàpp daan ko Baay Faal bi demul loolu Siteu si kaw si kanam jàmbaar la Baay Faal la mar Sénégal est-ce que ñoom ñëpp dañoo laaj ma muy lan ndax jàppoon nañu bu arbitre soufflé làmb ji day jeex mais Siteu bëgg na daw wër sa waay sax mais mënu ko jàpp xoolal yow kongal bu toll nii mënoo taxaw bëre yow Siteu la dëggeer nu mu toll nii bu ko Siteu tolloon làmb ji jeex na tamit la dëggeer nu mu toll nii arbitre bu soufflé du ma xaar sax damay dox si kawam du daan ko mais mënu ko Siteu dafa si làmb ji te bëre nii billaay wallaay grand frère bu mu defaral la la bëre amateur yi koy Siteu ndaanaan la Lac de moom lu mu doon woote lu mu doon wax yëpp si signature bi dara boo taxee ma ñëw boo boo dee ma ñëw Lac de Guiers bëréewul dara Lac de Guiers moo bëréewul dara Siteu dafa bëre combat bi Siteu dafa bëre combat bi ba combat bi jeex Siteu champion yi moom la ñuy ñaan essan yi essan yi bi ñu jox ñu jox Lac de Guiers lii di bi ñu jox Lac de Guiers lii Siteu xoolal champion la ndaanaan la Siteu rek la ñuy topp ñun waaye ñu kenn ñun Siteu rek la ñuy topp waaw Siteu champion la Baay Faal la non tey moom gars yi yëpp dañu kontaan parce que maam laa ma ji ñëpp ne Lac de Guiers arbitre dinaan mu dox kaw gan gi jàpp ko duma daan ko promoteur yeeg ñëpp loolu foogoon mais instant yii man boog bu doon may arbitre victoire bi Siteu laa koy jox. parce que moo moom. Lac de Guiers la boo xoolee Lac de Guiers mi texaco ngandi nit la ponkal en di bere boy bu ndaw bi ni boy bu ndaw bi ngal ko meuna japp da fay tan adi ga du mur way premier du nit gay ya non man mom reug reug reug reug reug ma neex yalla lalu guer man essay antoni mo ko non conseil lan la koy conseil dama geje way nga garde boti non non jeex na jeex sen patax lan nga du mur ba mu dam mu gade mur da ngay beul di tan bañ tan la bo xole premier du guer manam ba dam wala ngay jeu manam mom la am na fi roi ñu na ba jeur roi am sen bay won na beure ba ñewa jeul ci taw lan nga roi mais Lac de Guiers léegi moom lu mu bëgg moom Lac de Guiers na bàyyi bëre xanaa mu dem eh, mu dem ay jën non maanaam Lac de tey boo xoolee combat bi tey boo xoolee tey combat bi tey Lac de Guiers xeex bi yëpp xeex bi yëpp maanaam xeexul pour tuur day xeex maanaam pour waay saako yi waay am avertissement Lac de tey xeex bi yëpp de da ko doon xeex ak moom dàq ko mu génne saako yi avertissement pour loolu la seul même fa dara tey adugar mo mo diga la kay bet ni ñep ma sama mo bet ka rek day topu ci ci jaw ak lañ deug jaw ak amu ragal da la gel du mbeur mi rasu da la gel du mbeur du mbeur xam nañ ko da la gel billahi wallahi tala gina man ma ma de won mana mam da nga ciop la la la kan kan la wo si Balla Gaye incha allah si Balla Gaye incha allah Balla Gaye Balla Gaye du ma ko jaaree yoon. foo xam ne tey daal barke Alaaji Baara. la la gën damay bëre. damay bëre voilà. kooku kooku seeg la du mbër. jigéen si kii dañoo ñu bëre. dama koy dépassé dama dama daan ma avertissement dama koy dépassé dama jëli Balla Gaye daan ko. bu jeex ama mënuñu daan du ma ko jël ama daa daan man du ma ko jël. la dëgër barki Seydina Muhammad grand bi maa ngi la dëgër billaa wala daalaay la dëgër ay supporter am da leen yëpp billaa wala wa daalaay di dagg tike a di bi fajal ba tey Siteu yoonu laa ma ubbeeku lay jeex bo ñewé pensa bop la déger promoteur yi ñoko wara bayé tégal lamb parce que du mbeur kenn jël ak la déger bu kenn la déger bu kenn jël la déger non imposé bo xolé sida li bëré nga xamni euh, sida bëré na mais tamit mbër bu mag ngay ngay nga def ay effort te moom du def dara day taxaw rek di boo jàppee da def action mais mbër boo xam si da ngay jàpp doo def action ñun si da rek la ñuy toog si da kese la kese kese bamba bi la da bu si da génnee saaxo la am na bu si da génnee la commencé zumbale si Madiagal coobatina loolu du yoon na taawul bëre borom sëy karamal góor ci yàlla la si te la ñuy topp ñu na waaw waaw waa si te yaa ngi nii waa si te yaa ngi nii amul leneen santaan la dageeru daan si te buy mën buy mën dam ne na sa waay na dem ba géejawaay mu xool Sadio wala Balla Gaye mu mën leen si daa leen mën si la waaw si la la ñu lay si la bu lii jëlee bu lii jëlee ah da dem doole barke maam Seera Fall si bu amee doole booy yi ne kuy balbal moo toj seen moo leen mën monsieur Balla Gaye la Balla Gaye su barke maam Seera Fall Balla Gaye la lay wax ji jox Balla Gaye Balla Gaye borom dëkk bi Eh, eh, eh, voilà dañuy continue ba euh, euh, exactement euh, réaction pour le combat bi nga il arène nationale Tarkinda l'enfant série de Diamaguène mu en tout cas ou par avertissement ci kanamu dit dit de guerre 2 exactement ah loolu nga gis. Lac de Guiers dama daw. billahi àdduna bépp dana taxaw ni bu jàppee gangi da ngay daan. daa daw tabe la. jango dama daw fépp. si te ba la ngay doon damay bëre damay bëre. bëre ji. yow lay wax si da si da dafa am doole si da jàmbaar la jàmbaar barke Seydina Mohamed ah loolu nga gis jàmbaar la mën naa jàmbaar la laa la wax si da kese ngeen kon rendez-vous rendez-vous bi rendez-vous ba ba gaala si da góor jigéen waaw góor jigéen la promoteur an la jaay fa cinq bolok waaw ay eh, rendez-vous bi kër si de ñu dem ak yow ba kër si de fante si de ñu nag yéen ba gaale si de wala mom mom mom ba mu ñëwee défensif boobu nu eh, instant bu ñu xam bu nga xamee woon moom la ñoo wane te dañ dañoo yaakaaroon day ñëw jàpp boobu sax sax ko daan ko. est ce que yow yaakaar nga ni yow si de potable adversaire am comme li sa fan moroomu fan si di wax tamit ñu ngay ànd ak rek nee nañ si de ki nga xamante ni moo di adversaire am nga xamante ni moo nekk si lamb ji mu war a bëri ak moom moo di bàlla ngay dee est ce que yow loolu lamb la. waaw lamb la lamu la fo tek ni lamu la ndax balage fumu jaar fumu fumu jaar cité eh, dafa ñew jaar fa cité dafa jaar dafa jaar normalement da nga wara beure ay morom lañ gaay cité kasse gaay cité